أمي والنار للا بسرني ولي بكر لله asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu fii ci kër Sëñ Tuubaa gii ci Tiwaawan ngir waajtaay bisu xasida bi ñu fiy amal le 6 mars 2022 incha allah muy bisu alxuraan ak xasida kon nag ñu ngi ci séntu mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yëpp rawatina waa kër suñu maam Alaaji Maalik yi nga xamante ni bii njàngum alxuraan daañu ci jàpp bu baax a baax a baax a baax dañoo bëgg nag bu ñu duggee ci li euh, bis boobu. lépp ñu siy suuf ci addiya ñu boole ko lu ñu yor jëm ci ubbite jumaa ji ndax dafa def ay liggéey su ko defee la fa ruuse ñu eggale jumaa ji ngir mën ko ubbi kon nag ñu ci séentu mbokki taalibe bi yëpp ak mbokki bi yëpp kenn ku ci nekk nga jàpp ci ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf.